bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah eh, yéen waa groupe As-Samadiyya man la seen bokk taalibe alhaaji Fàllu bu Sotamba maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di jël nuyoo bi di ko teg ci eh, loxol suñu wayjur suñu nijaay suñu xarit eh, al al muridu sadiq sëñ Samad moom Cheikh Souaïbou di ñaan mu àggale ko ci mboole waa groupe bi yëpp rek di leen ndokkeel nag yéen ñëpp ci bis bu màgg bi xam na tey jii ci lañu nekk di fukki fan ci weeru août fukki fan ci weeru août nag buñ ko waxee xel yëpp dana dem ci bis bi nga xam ne ci la Cheikh al Xadim génne woon yi Baari eh, ngir laxasaayu laxasaayam ju dëgër joojee fas yéene liggéeyal li boroomam ci ci tukkib géej gi loola tolloo woon ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum jay sasin nekkoon le 10 août kon 1895 sëriñ bi génn ci ca gaawu ba ca yoor yoor fekk na xam ngeen ne ca bisu àjjuma ba ca tàkkusaan rek taalif na xasida gi mu tënke xasbunallah wa ni'mal wakilu di xamitu man yaasimuni min addarar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar ngir taalif ko nag ci ndigal la Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ngir eh, aaroo ko waaye ngir sangoo ko maanaam ngir sange woo ko ginnaaw bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam sange na ko ba noppi na ko demal imsi laa taxsha al gharar wala laa taxsha darar yëpp baax na demal bul ragal waru bul ragal itam loru kon fukki fan ak euh, fukki fan yi ci weeru ut kon tey jii mu dellusiwaat yàlla dogal mu fekk ñu nag ñu itam ñu ne fii ci Touba Gabon ci diggante Libreville ak Mayumba ak na di xeeñcu jeexiti sëriñ bi loolu kon di tawféex ju rëy rëy ñu ngi ci ndokkeel ñëpp ñu fas yéene def tënk bu gàtt rek ci tukki bi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim tukki si woon fii ci géej gi te muy tukki boo xam ne ni ko sëñ Moussa Ka waxee te sëñ bi ko waxee noonu euh, sëñ sëñ Moussa ko walafal rek ne dogoon ak dem te kon billaahi ñëpp dem niiraanu sëriñ bi kon génn Mbàkke Baari Euh, tàggatoo njaboot gi jël njaboot gi dénk leen yàlla waaye teg leen ci loxoy ci loxol euh, rakkam ju baax ja taalibeem ba murid saadix ba soppeem ba di maam Cerno Birahim mi nga xam ne moom la dénkoon njaboot gi te ba mu ñëwee amul ci lenn lenn lénga lu ko naqari wala loo xam ne lu ko metti la mu daal dem jaar jeewal mu jaar jeewal xam ngeen ba mu fa jaaree fa la dajeek euh, ki nga xam ne mooy l'administrateur du di du du Saint-Louis muy Leclerc fekk na booba moom mobilisé na armée bu rëy rëy ngir ne day ñëw pour fekk sëriñ bi Mbacke Bary euh, sëriñ bi yónni maam Thierno yu ko xamee loolu day gudd maam Thierno dem na ndar dem na itam jeewal fekk fa dégg nga Leclerc ba sëriñ bi ñëw jeewal euh, daje fa ñoom euh, fanaan fa <clears throat> ba xëy soog faa jógee jaar kokki kokki googee la tàmbalee taalif xasida asmaa al badr daal di wéy jaar Louga jóge Louga daal di dem ndar ba mu demee ndar nag fa lañ ko téye xam ngeen ne. ab diir la desoon ci safar bi ak weeru gàmmoo ba ba weeru gàmmoo des ñaari fan ci xalima ak boppam noonu la ko bindee weeru gàmmoo des ñaari fan muy bisu alxamis ba ak bisu àjjuma ba fekk na ci diggante boobu conseil privé euh, daje nañu ci njiital mute euh, dégg nga luy mute ba décréter liir rapport Merlin bi nga xam ne moo sukk moo maanaam mi ngi mi ngi mi ngi basé wu mi ngi sukkandiku ci rapport euh, waajur ñuy wax Leclerc te lépp di aytuma kese rek ñu ne kon nañ ko génnee réew mi yóbbu ko foo xam ne bu fa demee euh, dégg nga njàngale mii muy woote du fa gis ko ko fa wuyu ba noppi itam euh, lim jotoon a taxaw taxawal fii balaa ñëw su fekkee dina ñëw sax dana fay ba nga xam ne dootu amati jeexit kon le cinq septembre 1895 ci lañu ko ci la ñu euh, ma daje ci conseil privé juboo ne kon nañ ko génnee nañ dégg nga nañ ko génne Sénégal fekk na booba la daloon sallallahu alayhi wa ba. Euh, ba waa daaru nadwa euh, muy maanaam sangi xuraysin ya dajee di xool boo xam nuñ koy def ba ba alxuraan di ko net surtout anfaal wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuk wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin loola itam moo ko dal mooy ñu ngiy fexe ci yow ngir xool boo xam ndax dañ lay tëj ci ndar gi wala ndax dañ lay faat fa saasa wala ndax dañ lay génne ñaar yu njëkk yi nag muy tëj gi ak faat gi nag ñoom jubóowuñ gi ndax ndax leen lu ci leen lu ci ne ci ñoom naa dañ ne buñ ko defee jafe-jafe mën na ci am fa saasa conséquences yi mën naa rëy ñu ne kon nañ ko génne loola dajeeg euh, jubóog mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir euh, ci maanaam ci biir assemblée boobee. ci loolu kon ci tënk rek ci lañ ko daal di nag dugal saxaar mu jógee ndar alxamis jooju nga xam ne moo tolloog le 19 septembre la jógee ndar ñëw ndakaaru fanaan fa guddig àjjuma gu metti gu tis goog nga xam ne mi ngi fanaan ci Kandé Diop bi guddi goog nga xam ne lu doy waar la euh, maanaam Cheikh Abdou samat mii su soo koy nettali sax na soo koy nettali sax di wax ne la maanaam booy boo tëb ko rek ndax ndax dafa dafa metti kon xam naa dama koy tëb rek waaye daal metti na metti goo xam ne daal àgg na ci ne saa bu xelam demee ci guddi ga ci panaan ma dana dana xelam day day necc yi bëgg a jël ngànnaay ngir xeex ak noonu yi waaye sa alayhi wa sallam moo koy tere loola moo dox diggam ak loola ba mu xëyee ci àjjuma ji nag nekk le 20 septembre fekk na gaal gi ko war a yóbbu war jóge jógee dégg nga France euh, le Havre euh, ngir ñëw Dakar egsi fi ci fan yooyu xëy na àjjuma ji ndax ci àjjuma jooju sax la wax na ci la dugg ci gaal gi ba mu fa duggee ba bi mu duggee ci gaal gi gaal gi yendu na àjjuma ji fanaan na ba bët set di gaawu tolloog la 21 septembre ci la gaal gi soog a départ muy la ville de Pernambouc mu jóge Ndakaaru nag ak xew-xew yi xew ci gaal gi nag woowu ñuy nettaleeg tumaranke gu metti gëm fa tumaranke yëpp bindal na ko boppam ci euh, ci dégg nga gisaa Shakoor wax ne foofa damaa mujj mel ne sax koo xam ne da génn àddina ndax tumaranke gu metti gu tar ak euh, yu bare bari ba yàlla dogal gaal gi départ ñu escale ay escale yu jiitu ñuy agsi Gabon escale nañ Conakry am na yu fa xew ba mu dégg nga bind ko escale nañ fi ñuy wax Garambassa am na yu fa ba mu bind ko ah, escale nañ itam fi ñuy wax dégg nga Daoumé euh, muy léegi bene ak ya fa xew ba bind ko ci mbirum parfum yaag yooyu waaye nag fa ko taxoon a jóg dëgg-dëgg nag mooy Libreville gi nga xam ne tey jii fi la ñu nekk muy Gabon gi mu agsi fi nag ni ma ko waxee woon ci waxtaan yi jàll euh, fukki fan ak ñett ci weeru rakki gàmmoo euh, la agsi euh, fii ci Libreville fekk ci njëlbéenu weer wala jógee dégg nga Sénégal ndax waxoon naa ne bi muy jógee ndar boobu ñaari fan moo des ci weeru rakki gàmmoo bi kon bi muy départ mën naa doon ca bis bu njëkk ba wala ci ñaareelu fan ba moo tax fii kon ci fukki fan ak ñett yi ci la agsi kon lim am ci yoon yi boo ko seetee fukki fan ñaar du ko ëpp fukki fan ak ñaar du ko ëpp ndax diggante le 21 la tolloog le 2 octobre 1895 nekk fukki fana ak ñett ci rakki gàmmo ci jey sesune ci la gëstu yi nga xam ne mbokk yu baax yooyu tënku ci sew-sew yu mboor juboo gis ko yi nag ci euh, ci dégg nga archive euh, muy manifeste bato boobu ñoom moo moo firndeel kon taarix ak date bi nga xam ne ci la Seexul Xadiim ak si Libreville bi mu ñëwee Gabon nag Libreville nee na fii moom yàgguma fi ay weer la fi def xew-xew yi fi xew xew fi feeñu gaxlu badrin googu muy nettali ci ay mbindam yeer mi ñu ko fi gasaloon euh, fusillade bi yooyu yëpp nettali nañ ko ci ay waxtaan yaatu yenn yu ci nekk itam sëñ bi am na yu mu ci am na ci yoo xam ne sax dafa tudd dëkk bi sax wax ne fi la lu mel ne yestaradil muna la daa libar wali man xaadali maa xaaba an kulli wali muy feeñu gaxlu badrin gi ngir muñ gi muñoon ca lor ya ca lor yam doon jànkonteel ci biir soldaar yañ ko booleeloon yooyu yëpp mu muñ ko ba yàlla feeñal fi gaa yu tedd yu baax yooyu ci ay ci ci réew mu lënd mi noonu ci boobu jamono réew moo xam ne nee na bi bi ma fi agsi ki ko yilifoon boobu jamono mooy iblis mi nga xam ne mooy tooñkat bu mag bi eh, summa madaw xata ila jazira raisuha iblisu dul jarira daan ne qad wasalu fi subhi yowma al arbaa baada bala in wa azan tatabaa loolu kon bisu àllarba boobu ñaari fan ñaari fan yooyu ci weeru octobre 1895 sëñ Tuubaa moom tudd na bis bi tudd waxtu wi mooy bisu àllarba bi ak waxtu suba woowu kon na nattu yooyu mu fi daj nekk nattu yu metti waaye nekk na nattu yi gën a metti ma ngi koy xaar ci maayum baje ak lambar na ja moo tax bi mu fi amee diir bu gàtt boobu lañ daal di nag décidé nag nañ ko yóbbu nag euh, maayom ba maayom ba googee nag fa la am juróomi yoo xam ne nee na ci laa mujj mel nepp jant ñëpp nekk fépp ama njëriñ ñëpp di leeral fépp itam noonu la ko suñu laamin firee ci bi sëñ bi ne maanaam sirtu biha ay bi eh, alxams assinin allati makasaha alcheikhu alxadim fi ma yomba eh, kachams daa mujj mel ne ab jant mu ne rifaatan wa intisharan wa manfaatan mooy ak kawe ak tasaaroo nekk fépp ak ama njëriñ ñëpp jant ku ne xam na ne bu xasee fenk rek nit ñi daal di sawar tàmbali dund dégg nga deret ji daw normal eh, waaye ku ne xam ne jant mi ngi fépp itam kon ne xam ne itam jant itam dafa am leer yooyu yëpp kon di ay awjuhu siba yoo xam ne sëñ bi leen moom moo ko leeral ci al irwa sëñ nag dem maayam ba googu def fa juróomi at jihaad fa jihaadu nafsi ju metti yoo xam ne xiif bu metti koor yoo xam ne wax na daan daana woor ba ngoon jot ndox mu mu doge wala wala wala tàndarma bu mu bu mu jëfandikoo sax du ko am day witt ci xobi garab yi rek di muucu bu ndox génnee rek mu daal di wéyal ak kooram nee na yaa xeer a gam fa taalif ak yaatal busaraati bii mu di ko gàttandoo weer wi bii mu ko gungee diggante ñaari yaay yooyu mosu fi loo xam ne ci cin lañ ko togge waaw am na yoo xam ne ab ñuy tàttali sax neen wax ne am na foo xam ne ab xaal la xar xaal bi daanaka moom lay dogee di dégg nga di ko xëddee ba weer yu jeex te xaal bi xaajut xam nga kon kooka ay mbiram yéeme na euh, waaye teewul rek gis nga na muy teeroo gan gi yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi di ko wan ko mbégte bi mu am daal ci seg ñëw daal mbégte mu kawe kawe la ba muy jeexit naqar bi mu am daanaka ëpp na mbég moom amoon ci bi muy ñëw yaatal busharaati bil ayaati wa suwari li chat bi kaw ni abdul muhsin suwari ca tarjumaan di rek ma nga naan ko yaa ngi dem de waaye lam astaghni anka eh, maanaam maanaam maanaam doyalu ma ci yow eh, te it nam te tey itam lam amal la min ka maanaam eh, waxtu wu daal maa ngi bëgg daal nga di nekk waaye du ma taayal ci yow duma ma yuqat ci yow kon yooyu di loo xam ne xewee na foofu ci dëkk boobu ñu wax maayum bi mu ñëwee Gabon nag Libreville nee na fii moom yàgguma fi ay weer la fi def xew-xew yi fi xew xew fi feeñu ahlu badrin googu muy nettali ci ay mbindam yeer mi ñu ko fi gasaloon euh, fisiyaat bi yooyu yëpp nettali nañ ko ci ay waxtaan yaatu yenn yu ci nekk itam sëñ bi am na yu mu ci junj am na ci yoo xam ne sax dafa tudd dëkk bi sax wax ne fi la xewee lu mel ne yestaradil muna la daa libar wali man xaadali maa xaaba an kulli wali muy feeñu ahlu badrin gi ngir muñ gi muñoon ca lor ya ca lor yam doon jànkonteel ci biir soldaar yañ ko booleeloon yooyu yëpp mu muñ ko ba yàlla feeñal fi gaa yu tedd yu baax yooyu ci ay ci ci réew mu lënd mi noonu ci boobu jamono réew moo xam ne nee na bi bi ma fi agsi ki ko yilifoon boobu jamono mooy iblis mi nga xam ne mooy tooñkat bu mag bi eh, summa madaw xata ila jazira raisuha iblisu dul jarira daan ne qad wasalu fi subhi yowma al arbaa baada bala in wa azan tatabaa loolu kon bisu àllarba boobu ñaari fan ñaari fan yooyu ci weeru octobre 1895 sëñ Tuubaa moom tudd na bis bi tudd waxtu wi mooy bisu àllarba bi ak waxtu suba woowu kon na nattu yooyu mu fi daj nekk nattu yu metti waaye nekk na nattu yi gën a metti ma ngi koy xaar ci maayum baje ak lambar na ja moo tax bi mu fi amee diir bu gàtt boobu lañ daal di nag décidé nag nañ ko yóbbu nag euh, maayom ba maayom ba googee nag fa la am juróomi at nag yoo xam ne nee na ci laa mujj mel nepp jant ñëpp nekk fépp ama njëriñ ñëpp di leeral fépp itam noonu la ko suñu laamin firee ci bi sëñ bi ne maanaam sirtu biha ay bi eh, alxams assinin allati makasaha alcheikhu alxadim fi ma yomba eh, kachams daa mujj mel ni ab jant mu ne rifaatan wa intisharan wa manfaatan mooy ak kawe ak tasaaroo nekk fépp ak ama njëriñ ñëpp jant ku ne xam na ne bu xasee fenk rek nit ñi daal di sawar tàmbali dund dégg nga deret ji daw normal eh, waaye ku ne xam ne jant mi ngi fépp itam ku ne xam ne itam jant itam dafa am leer yooyu yëpp kon di ay awjuhu siba yoo xam ne sëñ bi leen moom leeral ci al irwa bi nag dem maayam ba googu def fa juróomi at jihaad fa jihaadu nafsi ju metti yoo xam ne xiif bu metti koor yoo xam ne wax na ne daana woor ba ngoon jot ndox mu mu doge wala wala wala tàndarma bu mu bu mu jëfandikoo sax du ko am day witt ci xobi garab yi rek di muucu bu ndox génnee rek mu daal di wéyal ak kooram nee na yaa xeera dayf gam fa taalif ak yaatal di ko gàttandoo weer wi bii mu ko gungee diggante ñaari yaay mosu fi loo xam ne ci cin lañ ko togge waaw am na yoo xam ne ab am na ñuy tàttali sax neen wax ne am na foo xam ne ab xaal la xar xaal bi daanaka moom lay dogee di dégg nga di ko xëddee ba weer yu jeex te xaal bi xaajut xam nga kon kooka ay mbiram yéeme na euh, waaye teewul rek gis nga na muy teeroo gan gi yaa xeera dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi di ko wan ne ko mbégte bi ma am daal ci sëg ñëw daal mbégte mu kawe kawe la ba muy jeexit naqar bi mu am daanaka ëpp na mbég moom amoon ci bi muy ñëw yaatal busharati bil ayati wa suwari li chat bi kaw ni abdul muhsin suwari ca tarjumaan di rek ma nga naan ko yaa ngi dem de waaye lam astaghni anka eh, maanaam maanaam maanaam doyalu ma ci yow eh, tey nam te tey itam lam amal la minka maanaam waxtu wu ne daal maa ngi bëgg daal nga di fi nekk waaye du ma taayal ci yow du ma yuqat ci yow kon yooyu di eh, loo xam ne xewee na foofu ci dëkk boobu ñu wax maayum Eh, waaw maayomba googu it xam ngeen ne fa lañ ko fa lañ ko joxe jumaa yi jumaa yi yu am solo yi ci réew mi ci Sénégal muy jumaa Njaaréem ji nga xam ne moom teg na ci bëtam ak jumaa Tuubaa ji ak sax may wax sax na ak jumaa yi jumaa yi Masaalikul Jinaan jumaa yi Montagne Sainte ji xam ne moo nekk fii ak jumaa yi ci yi ñëw ëllëg moo jëmmi rek ñu ngi fay naal jumaa insha allahu taala te jàpp nañ ne dana am ndax sëñ Tuubaa moom eh, ay ay mbiram lépp li li li li nga gisagul mooy gën a yéeme mooy gën a yaatu li nga xam ne sax moom nga gis mu samp ñeenti bantam nga def ko jàkka tubaab bi ñëw na nañ ko buddi Euh, mu taalif xasida raditu an il mawla ba agsi ci la hoktub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi wajal bihi masjidi rahba ñu xamal ko ne ko nangul lañ la te da nga da nga gis ñaan googu nga ñaan da nga ko gis ba tax mu bind wax ci mu waaxe bu googu nga xam ne mi ngi koy yeesalaate sax nag maayam ba googu moo gis bu inni bi matxi aayantu ribxi qataan wa nujxi ma al binaayi ci sama tag rasulullahi ci laa jàkkaarloog sama bénéfice bi ma amee ci liggéey bi waaye ci sama fajug aajo ak it tabaxub jumaa ji nga xam ne mooy jumaa yi njaarim ak jumaa yi Tuubaa ak jumaa yi des kon mu daal di suñu ko nangul lañu te te da nga ñibbi delluwaat ci njaboot ga te da nga gis itam jumaa jooju moo tax bi jumaa ba maa saa aqal bi ma li naqari woon sama xol ci maayum ba te mooy buddig ñeenti bant yi waaye yëkkati na ma sama wàll yi itam te mooy yëkkatiku sooroor yi ak yu tubaay yooyu yëpp kon loolu xewee xewee maayum ba maayum ba nag ba mu fa defee juróomi at nag ñu yóbbu ko wiir wiir wiir wiir googu xëy na ba eh, am na ay nettali yu wute yu ci am yëpp it mën naa wér ndax histoire moom moo demee noonu waaye am na ki nettali boo xam ne ci mujj am la bokk donte sax bu sëñ Moustapha Lo bi dëppoo naag boobu te mooy nettali sëñ Modou Khari bi nga xam ne moom sëñ bee ko ko nettali te mooy fi bi mu waxee ne ci tënk rek eh, mook sàmbalaw bi lañ boole woon tubaab bi sant benn waay boo xam ne dafa yor gaal mu dugal leen ci gaaram kooku sax dañ koo fay dañ ko luyee gaal gi wala boog da leen gaal gi yóbbu leen moo ñoom mook sëriñ bi ak i bagaasam ci benn roche boo xam ne bu sori ci biir géej gi foofu ci dégg nga géeju maayum bëggi bàyyi leen fa lu jiitu moom muy dellusiwaat fekk na sëñ bi moom ak sàmba ne dégg nga ñëwaat nañu ci fi nga xam ne fi lañ leen jëlee woon euh, sëñ bi sëñ sëñ Modou nee na sëñ bi sëñ bi nettali na ko ne ko bi nga xamee ne dem nañ ba ba agsi foofa dafa wax sàmba ne ko Euh, léegi waxal li nga bëgg sëñ bi ne ko man sam sam ne ko man li ma bëgg fi mu nekk nii mooy daal delluwaat sama réewum cosaan muy jolof googe sama njaboot ak yooyu xam naa ne sax loolu moom mënta nekk daal moom lu jomb lay doon sëñ bi ne ko waxal rek waxal waxal mu ne ko waa baax na léegi da maanaam damay sëgg nga boot sama ginnaaw te bul bul xool nee na daal di dafa dafa jël kaalaam sax moom sëñ Tuubaa takk ko ci bëti Sàmba sëñ ma ci nettali sëñ Modou Xarit ni moom man noonu la ci ñëwee nee na dafa jël kaalaam takk ci ci ci bët yi ndax ba am na luy lu lu war a xew ci ci ci li xam ne moo leen wër loo xam ne mën naa am sàmba du ko du ko du ko du ko attan te su boobaa ruuxam mën na cee des tax sëñ bi def loolu muy muy riir mu metti mu jéggi dayoo moo xam ne fi fi fi muy fi mu ko ne waral ma ma ma boot la muy sikki sàkk rek sëñ bi ne ko boo yeexee ka damay dem bàyyi la fi mu daal di gaaw war sëñ bi takk bër yi daal di jël bagage yi moom fexe na daal ba jël ay bagage am téye ko rek daal di def lu gaaw daal di delluwaat fa nga xam ne fa lañ jóge woon xam naa bi ñu ñëwee nag waa ji am am benn waay bu doon def bu doon xool doxantu rek ñëw fekk leen fii nga xam ne fi bi kooku ne ko mënta nekk daal di jël fetalam ne ko li nga wax bu dul dëgg dama lay rey mu ne ko d'accord naa ñu ñëw ñu fekk leen foofa sëñ sëñ moo dina ne sëñ bi nee na ko bi waa ñëwee dafa taxaw di leen xool di xool sëñ bi xoolub maanaam mbañeel ak xoolub kiñaan ak xoolub mer mer ba fut waaye xamul lu muy def xool ko lu yàgg waxut benn baat ba mu yàgg mu daal delluwaat borom gaal gi bi mu ñëwee moom fekk moom mi yàgg na ci yoon wi bi mu ñëwee gis ñu ne ko yow kat maanaam ñaar ñu ngi yóbbu woon kat ñu nga fee nga leen jëlewoon mën a dégg nga loolu mënta nekk ñu ne ko demal xool mu ñëw fekk def lu mën a xew ngeen maa luye sama gaal dem naa waxu leen ma woon ma dem pour alag leen wala pour faat leen da ngeen ne woon naa dem sànq maanaam teg leen fi ñëwaat lool def naa ko kon da ngeen may fay ñu fay ko la nga xam ne moom lañ jege woon ak moom kon loolu mooy wiir wiir ji mu sëñ bi nag def fa juróomi at kon Mayumba fay jógee nag ñëw nag lambar nag nga xam ne fi la mujj nekk fi la tukki bi jeexe muy réewi galwaa yi nga xam ne moom noonu la koy tuddee dañ bilaadu galwaa mu def fa ñaari at yu teg ay weer yoo xam ne moo moo moo moo mottali samaaniya xijajin illaa qalilan yooyu nga xam ne moo nekkoon contrat bi doonte sax nag contrat bi fukki at la woon fukki at la woon xëy na la ko mot li mooy ñaari at ak aslaf yi des yi nga xam ne moom la njëkk def gànnaar xam nga gànnaar moom daanaka ñeenti at la fa def waaye ñaari at yu njëkk yi nga xam ne moo moom mot li ba ci xëy na bak sasin bak sasin wala boog boog maanaam jak sasin eh, muy muy fukki at diggante jay sasin da nga ba jak sasin loolu doon contrat liggéey bi waaye ñaari at yu teg ay weer la def lambarana Eh, lambar na it metti lool ndax bi muy nettali ak ak sem lambar na da koo nettali ci anam gu daw yaram ndax dafa ne bi ma génnee maayom ba daxaltu fii jaziratin bi taab bi taab loolu doyoon na mu tekki ne waaye mu ne lam yakun asqala minhu xayru xuruji ruuxi dugg naa ci benn dun boo xam ne dafa metti lool coono bu métti métti laa fa duggee ndax booba pour ñëw lambar na rek il fallait que mu jël gaal dégg nga transité Cap Lopez eh, ñëw fi nga xam ne moo di lambar na man yàlla def na Euh, di xëy na maanaam diggante la diggante Mayumba ak Lambaréné moom euh, kii moo ko gaal mosuma ko jël gaal mais nag jël naa gaal moom diggante Kakab Lopez ak fi nga xam ne moo di Lambaréné moom def naa ko euh, nga xam ne lu mu néew néew dana war a mat ñaar téeméeri kilomètre ak nangam kon mu coono mu coono coono tukki bi rek daanaka dafa doy sëkk ak natt yi nga xam ne moom lay tegoo bi mu ñëwee Lambaréné Lambaréné baat bi rek ci boppam bi muy tekki ci làngu xëy na galwaa maanaam mee ne galwaa mooy nañ jéem a dem essayé xool ba xam ndax fii mën na sa fee nekkam déet ndax booba booba maanaam dëkk fa yombut ci foore bi ci ndox mi muy doxu maanaam dexu ëgguwe gi ak it euh, lu mel ne yooyeeg euh, la maladie du sommeil amoon na fa muy ay yoo yoo xam ne day ay godd yoo xam ne ñooy ëpp yoo foofu sax dañ daan mattanit ñi ñuy nelaw ba faatu euh, ba docteur bu ñuy wax Albert Schweitzer jóge woon Allemagne ñëw fa installé fa di faj xeeti feebar yooyu ba ba léegi boo demee Lambaréné di nga gis hôpital buñ ko fa tuddee da nga gis hôtel yi ñu ko fa tuddee ak ay réeg yooyu waaye sëñ bi moom yëpp dégg nga mu doon jànkonteeg moom di muñ muñam gu rëy googee ak jomam ju rëy ak fitam wa ak njàmbaaram nga ak dégg nga goreem nga mësta jàmbat lu li sëñ Musaa Ka wax lu nattu rëy rëy rëy da koy dolli gëm ak tawxiid ak fonk boroom ak jaamu boroomam te loola kon ci la nekk ba euh, maayom ba ba dégg nga làmbar na euh, mu am fa lam fa war a am daal di nag euh, tukki bi jeex nag mu war a ñibbisi nag kon xam naa foofu la ñuy tëjee rek ci ci ci bi mu demee ba nga xam ne nag tukki baa ngi jege si jeex mu wax boromam ci xasida wala xad karam naa nga xam ne moom maayu euh, mi ngi ko taalifi lambar na moo ko naa sukkoor la si biir kaaf ba euh, xew-xew yi lambar na yi bari na waaye xëy na lu mel ne euh, waxambaane wu tubaab woowu an maa nga xam ne dafa reew ba day da nga tàggoog sagoom ñëw doon ko jéem a dëkk ak di ko di ko di jéem a léewtoog moom yor jaaseem ñëw taxaw fekk seen baagi bind mu ñëw ne ko jaar ci turam naan ko maytuma maytuma te xam ne euh, man sama maam ji fi nekkoon di tubaab moo daan rey nit yàlla yi nga xam ne ñoo fi nekkoon te man doon naa ko ci loola. Euh, soo moytuwul kon danaa danaa def noonu sëñ bi ne ko euh, sëñ bàyyi ku wax ba àggal mu daal jël xalimaam googu nga xam daa ne sama xalima gi noon yi nañ moytu ak congam. ndax sama congu xalima moo raw ci ñoom lépp lu mën a alage lu man a doon rek ci congu xalima gi moo ko raw li yaxdari l aadaau satwa mirqami fa innahu ala al ida ka niqami mu joxat bi ko xalima gi ne ko itam moytu ma moytu ma te xam ne euh, doo sa maam joojee may ma ñooñee sa maam jooje daan daan faat mu daal di tiit nag di lox daal di dem bi mu demee am xam naa ñu yedd ko mu am lu ko gaar mu daal di ñëwaat fekk si waat sëñ bi ci mbaaram mi mu nekkoon di bind yor ab gàtt ak daa xam ne sëñ bi soxla na daa mu ñëw defeenu ci kanamam ne ko damay tuub daal du ma jóg mu ko te jéggaloo ma sëñ bi nee na boo fekk na maa ngi bind xasida goo xam ne maa ngi ko tënkee xarafi abatasa ja euh, nee na ma daal di fekk mi ngi toll ci xarful alif ma daal di bind wax ne alaana lil laylata qalba dirtidaad min baadi ma jaa bishaatin wa midaad yàlla nooyalal na ma guddik tey xolub ku murtat ku yëg boppam ba maanaam ba jàpp ne mën naa léew toog man yàlla nooyalal na ma xolam ginnaaw bi nga xam ne dellusiwaat na ngir tuub si andil ma gàtt bi ak daaji yooyu euh, ci xew-xewi làmbana yi la bokk yu dee ba nga xam ne war naa ñibbisi nag mu taalif xasida euh, euh, maanaam wala xad karam naa daal ne suñ borom rabbaytani rabbi fi l aadaai muxtariban xata rujuaye lil awtaani qad xaana yar nga ma ci biir noonu yi yar boo xam ne bu bu bu ma bu am solo ba nga xam ne nag léegi sama delluwaat ci réew ma nag jot na kon maa ngi ñaan nag sama dellu gi ci réew ma nag nga doon texeg sama xeet gi nga xam ne bu tax tax bokkoon na ci yi taxoon ma jog ñaan yoonu géej gi te mooy di leen ramm ci àddina ak di leen ramm àllaaxira ijaal rujuuan yi ilaa qawmi saadatana wal takfina yowma jamci alxalqi niiraana kon daal di tàggatoog nag réew mi nag daal di dugge nag gaal lambara na ñëw Cap Lopez fekk na booba maanaam bato bi ko war indi andi Sénégal jóge na Matadi muy la ville de Maceo accès Libreville amoon na ay problème ci ndox mi bi mu ñëwee mi ngi agsi fii euh, maanaam le 30 octobre daal la ko fekk tolloog Euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rajab ci maanaam dégg atum maanaam junni ak ñaar ci atum junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk muy kon kasas tolloog 1902 ay le 30 octobre 1902 la la sëñ bi déparé bisu alxamis la déparé euh, fii ci Libreville nag dugg nag ci océan Atlantique bi wuti Sénégal nag ak àgg fa nag le 11 novembre kon boo xoolee ba tey nombre de jours yi daanaka da ngay gis ne ci dem bi ak dikk bi daanaka sorewuñu benn lañ rek. mu jaar fi mu jaar yooyu yëpp itam manifeste bato yooyu yëpp am nañu ko macha allah ci taxawaayu suñu borom xam-xam yi ak ak dégg nga suñu gëstukat yooyu. lii daal ci tënk sëñ bi waa groupe As-Samadiyya euh, mooy li nga xam ne moom lañ leen waajaloon ci ndigalal Cheikh Abdou Samad ci la 10 août bi di ko barkeeloo rek di leen fasaale bu baax nag fii ci Libreville di ñaan ci liggéey bi ñu liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla yàggal fi Cheikh Ahmadul Muntaxa te wéral ko te yàggale ay yéene mi ki naalam yàggal fi rakkam yu baax yi nag te beral ci cër nag Cheikh Abdou Samad xam ne moom euh, ku nekk ku xay ku xam-xam ne ku bëgg sëñ Tuubaa la ba jeex ci moom ku ko gëm la ku ko wóoral la ku ko yaakaar la waaye loolu nag du ñu jaaxal ci moom ku xam ni mu demee ak fi sant yàlla ba yàlla ko yàlla yàlla yàggal ci kanamu njaboot gi di sant bu baax sëñ Jiiri Jëng mi nga xam ne moom itam fii liggéey bi fii ci Gabon ñoo ko ànd ak bi ñu àndal yëpp ci As-Samadiyya ba waxtaan wi mën a am lu ci njuumte nag lu ci ñàkk ngeen jéggal ñu ko yàlla ñu ko jéggalu yàlla lu ci jub itam rek ñu sant ko yàlla te eh, itam sant ko Cheikhul Khadim xam ne baaxu yàlla la ak baax Cheikhul Khadim ñu ngi lu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu